ara amoon a sakk leen seen nopp yi daw gaaña di nga toom bay ku yàlla xarab da ngay di sidi bara amoon na gayndeg ñanoor gi war nga da xaacu yaa lampu faar leeral nga xaddi nag la Sidi Bara amoon na dama gëlëm dama bimpin xuus naa ci géeji leer yi sama xol bi dafay say ngir sopp Bara amoon ci kaw lëndëm taras xaw na ñooy dee ci neen waay sam fenk na andi leer sidi bara amoon na li nekkee nga waaw sabu noor nan na ba mandi nuur ca leeri sidi bara amoon na mbindee fi yàlla haaye ca ga na leen bokku leen ci du ngeen gëm ga mar baa ngi leen di gaañ Ibrahima Diouf ñëwut ku i bañ Sidi Bara amu ne man li ma nekkee bëgg a wëy ŋaawal sabur noon nan na ba man di nuur ca leer yi Sidi Bara amu ne xabta taxu doomi lëg matte bu leen tànqal bay ñas yàgg nañ fi yéen te duuñ xaarif sidi bara amoon na sama xel maag yurak ca biir géej ga ñu da roota ndoor ndamuhuma dama ci neeri leeri bara amoon na lëndëm ci kaw lëndëm taras xaw na ñooy dee ci neen waay sam so fenk na andi leer sidi bara amoon na manga si leer ba lañ dajji Frey sodan Pariyanganan gongo Bini sidi bara amuna manga Balai ler balay Sodan fo rewi sodano sosasanan ali ngata bara amuna manga sinom ler balay dajji sodan sirir senan barke fapes sidi bara amoon na anin ceey anin bara njaaraama jërigeen jëf merci sidi barham mboolem xeet ya ñu ngay ramfa sidi bara amoon na joolaaya nan ca leer ga Casamance ngay riiti joolaay jaw fa junko anitu sidi bara am mën a piccam xàqu dërëm ku ko def maas mu damu say laaf doole amul xaami wattu leen sidi bara am mën picc mu manta naaw day wax ne men na manta naaw borom junne la fe day naaw gaañi bara am manjanaaw li yaaram di wax an xaaw ca asamaaw ba bitti ba fiqi la sabal sidi bara am na kërëg kumba ku ree tàccu ñi ne ñoo ngay ree baada yëgut wokke gëm leen sidi bara xamma jinne su bëggee Dakar ku yéeg daanu wàcci leen gaaw furi daf ne maa ngi weddi sidi bara am mana dallu karban ngaanagu ko sol ndaw jill buy ñaaw fu ngeen taxaw ba di dingat sidi bara am mana piccam xaqu dërëm ku ko def maas mu dammu say laaf doole mu haami wattu leen gaañe bara am ma lil ndabinda wax ci kaw banqaas bu dajee xaq dërëm bu cay dellu mu damuy laafam sidi bara amana hamna tayor bu nek fa sukun mam abdu ñang murid saadix bi moo da xaasi xaas abdu bi jarci bara amona mamun mu yaay moy mooy chambre de commerce mo len di fali ni man ñom xaasi bara amana sëriñ Aliou Cissé directeur la paase na commandant moo leen di may permis waa kër Sidi Bara amana Serigne Mbaye Niass moo doon député ca pays Sidi Bara ma ordal ya fa moom lay jaare gaañi Bara amana Cheikh Omar Touré koñ sa colonel école militaire yaa yor école militaire yi waa kër Sidi Bara Amana Sheikh Rafal entrepreneur moy Kadi bara, baraam moo Dohol doxal gaaya ya Sidi Bara Amana alam bu baraama dëgg tankam bu koy yëqee faat war naa nga wutu Sidi Bara Amana Usman jai tok ca kaadar ba moo leen di rappel la wex bi meri bara amma seeku satu ñang am nga sewetaas jaayante ngaak baay tampe nañ la maloo laada sidi bara amma seeku satu am nga sewetaas yaa gëlëm ci baraham boo de sikar saleer tatar sidi baraham fa mulku ak malakut huru ayni yaa ngi lay téléphone ne yaay seen dëkkandoor te warlu naa ngay xaasi xaasi gaañi bara ama ne Amadou Thiam Guinée Waalo yaay gërëng ci biir géej fàttalaami daanu jaaxaan sidi bara ama alhamdulillahi sil qidam man ki xamul te xam maa jóg da kañ ka xam barhama si yow ya ngalam sapa maa ngi sakku ñaan bur yàlla daqal aji hanya safar denyan mom moom Allah dakal kokanyan julil macita rasul wa ali sawil udul وسبي أم البتول في كل ما أنا كمول بر هم نسيو يا إنغلام تبك نيرم أكتوام sakkat du neex ba mel ni lem baay fu mu juddoo tay fu mu yaroo ca kuusi baay ku ko jàngal baayam la moom kon tey ba yaada manga siin baay fu mu juddoo tey ba ñasen fu mu yaroo ca goosi baay ku ko jàngal baayam la moom kon tey ba yaada manga siin yawmal xamis ca takkusaan koo waa dal mel ni saan malaaka yaa nga sabbenoon subhaana barhama yaay cosaan yawmal xamis ca takkusaan fukk ak juróom sahrul manaan mujib rajab waa xay naan waxal ñu xaw su fanaan jóg ñu màggal baay waay jóg leen ñu màggal baay jóg leen màggal Mawlaana Cheikh Ibrahima ca takkusaan leen baay fukk ak sahrul manaan mu dib rajam wa qaybunaan waxal ñu kaw su foy fanaan hatum junne gannaaw gaddaay jërëjëfe baay ak ñetti tiir jërëjëfe baay jërëjëfe baay jërëjëfe baay ñu neewa neew nasor keroog la xam mu da juddub barhaama ñas mu da juddub barhaama ñas xatum junne gannaaw gàddaay ak ñetti téeméeri xat bilaay yu tag fan yu niiw niiw naasut keroog la xam takkaay mu da juddub barxaama ñas bilaa mira walaa labaas xarnu yëggin bi yaa ko tasbaay barxaama yaa da xaw ñas Muusa jógol taw na ba tooy Moussa jógal taw na ba tooy takkal machine yi fas yaa ngi jooy ngir bëgg a bay sa tool du booy bay sa tool du booy sa tool du booy ndax mu takkal ma ay garaat bay may ma ma jóg ci haat na ma xamal lan lay doxaati ëllëg ana ban ay dapoor lay wàcc haat dolli ma ndax ma woy yaa koy joxe ba tax mu law ba tax mu law nekk di lew askey barhama yaa fi xaw secteur yi moo da abdallaay waay loolu ca asaloon bi lay nga wàccaat fii ñu naan la bay ñas ngay doon di bay ci abdallah mama ji ñas ba mooy nekk jolof cëla ko feeñu nan ko yónni nañ ma Saalum bàyyi barahama mama ji ñas ko Seydou nañ ma Saalum bàyyi mama tiñas ba mooy nekk jolof ca la ko Seydou feeñu nan ko yónni nañ ma Saalum bay barahama ajeen ko naan Seydi kañ nga ñëw donte kon ma xam ko ndikoon dang ma fekk Saalum bay barahama Seydeen ko naan law alamu yàlla ju yam neen fu ko neex lay denc mbuutam bay barahama booba la suñu maam ña laxasaayu daba gat mbaal ga taggu joloof jëm si saalum bay barahama keroog ba mu wàccee biir saalum lañ ko sancal ñesen buram mbaxeen fal ko xaadi bay barahama bam fa boo la sanci dagga malik binne canaaba ga kabar ko bam suubu bir géej bàyyi barahama bam fa doo la sanci samba toog fuglu seydi mu nga ñaan ca yàlla ak yónneen bàyyi hootif ba ko fekk kër Samba nan ko aji habdu sëñ bi wéy na bambu bàyyi bare am keroog ba mu wàcci biir bambu dal di fatal ya ñaamu tuubal bàyyi bare am langa cundi mbal ga jàppuna ña seen bakku maam aji ñas ba na fi mbër bàyyi bara ama ñett ak juróom weeru novembre ci lañ wa baay maam aji ñas guuri guur ñi barke bara ama góori xaybu ya sànni woon seen mbaal ga bërëb bu barham jën wu mag wi teer na ci yow bàyyi barham ma ne jën wu mag wi keroog ba mu teere ci mama ji abdalaay ëloo soodaan ci leen suure backa barham mama ay satu bintu ibrahima njànkami yaa foor ci yow lañ wàccee min ka suñ baay sidi baraham mën a doomam xalam ko lëg lekke booba yàlla coy la maam li ñi jagle duul luñ jëf bay barahama ji kañ sang ku mu tooña ndoxam men du forox jàngi leen yéen fuuta yi réero sidi barahama leerak jant ñay dox diggam mu na duñ moom bu fajar xare war nañoo dee nomi bara am mana nara bi doon jaay maqaama innu maa yaaba di ko tiitaru si kaamil nomi bara am dañ ko tonkomal daane ko ca mbedd ko uruj génnal kër gi yow mi bay seex noonu bara a mën a ñàkk teggiin tegge aljana torox na taxalgu martabaal seex gaaw na koy dal noonu bara am laana allahu innuma yaabam nit noo nafsiya yal na laf ci gi ji sidi bara amana awlu lansar yaa nga kër ma jiben ñoo da rosengeer abdu biige gëm na yonnen sidi bara ama maam aji seynabu yaaram bi haarif bi yaa foor nga min ko suñ baay sidi bara amana aabil la aalim la aarif la bara ama ko seede yal na yàlla jokk nga ramal sidi bara ama yàgg ak bant ci biir géej du tax mu nekk jën maj suubi xeexu leen gëm leen sidi bara a mën a yàgg ak bant ci biir géej du tax mu nekk jën maj suubi xeexu leen gëm leen sidi bara a mën a xiweñ mbeng xifar ba ca gu nu ngeen mu jang moom jaasi lañ ko gor mu jaaxaan sidi bara a maam képp ku la bañ Iboo ngi ci xeelam lu mu digg moom la bu ñu dajee duñ ko jàddal noonu bara am man du ma ko nuyu du ko jox loxo yow ma yu pensuuna yàlla buñ fa dajee kuy bañ sidi bara am buñ fa dajee bal ma tampon ko bam daanu jeexaan Ibrahima Diouf sim kuy bañ sidi bara amma tubleen te xeeslu ci bàyyi ko du ngeen layoog buur xam ngeen na sidi bara am mooy seexu tijaan xam ngeen na sidi mag du janoog yooñ da gas caaxaan bu leen tànqal baay Seexu Tijaan fal gañi barahama fal guñ falee ësal ku ko folli man def na may ree ahlu soodaan dañoo réeroog sidi barahama diggee bi ngeen diggee xaddina dafa leen koy njuy xilimaanu faydu ba ñëw na moti barxama diggee bi ngeen diggee xaddina dafa leen koy njuy yëpp wuutey waral dëgg jaan gani linkaare burxatu sim na gaañ ko jàngoon dawe baraam jëfee caawa ta doo fas meew ahlu linkaare buur kaacu sinna gaañe ko jangoon dawid di barham di fee caawa to doo fas meew gaañe linkaare muuraay yi yi ngeen nekke ak lëndëm la ci yéen muuraay bu doon taxa falu bon juuma di seef ku la bekkaati ne ko njool mi baraama sun na leen gees bu leen xañaan bu leen bañ bañ lu bu ci bañ ba dee yaa weddi yàlla yaa bañ maam Seexu Tijaan bu leen xëccoo nekk leen benn te liggéey ci baraam ñàkk manta tàggoo boromam dañi baraam ñàkk du réer borom maj farlu leen ci yàlla randiw baa nga bii la hoot sidi barahama ibrahima juuf dëggal naa loolu te maa huulu baay yal na jëf yi baax yi sax fa huulu barahama yaa ayyuhan naasu irjoo ilaa rabbikum dun bi kenn ndoor la gëm leen sidi barahama dee ci reer ji tere nit amrullahi lu ngeen noone barahama kullu nafsin saayiqatil mawti yaa ayyuhan naasu xarmel kërëng dol la gëm leen dañi barahama na gannaaw dundu gi dee ha cee topp baram dem soldaar mu jaw fo ñu rappel sidi barahama xadrin qidar nasi